conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse dali jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyando yéenekaay gi di réew mi quotidien la turbine le témoin ñëw ci njiitu réew mi di président Macky Sall ak kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ca Paris la France ci ndaje mi nga xam ne entreprise française yi maanaam ñoo ko doon amal te bàyyi la ka ndajeema yéenekaay gi di réew mi quotidien nee na Macky Sall bi nga xamante ne yëkkati na ko fa dafa yi nga xam ñaari junni ci ay chef d'entreprise wax na ci lu jëm ci bor bi nga xam ne Afrique amee nañu ko ak nan la ñuy def ba daal di koy yoxamal wax na nan la Afrique di fas yéene jugaat ci lu jëm ci wàllum économie Covid 19 bi nga xam ne ñu bari sonal na leen ñu bari am tiitaange ne maanaam économie bi ngir mu jugaat ci ay jafe-jafe neen lay doon ñi tiit président Macky Sall bokku sa yéene kaay gi nee na Macky Sall sax dafa am confiance jàpp ne économie ci déndu Afrique rawatina Sénégal maanaam bu ñu ko xoolaatee dafay gën a am doole wax na ci modèle de développement. développement wax na ci nag erreur yi nga xamante ni def nañu ko dañ see war a jàngee ndax moom Macky Sall nee na nit bu defee ay erreur erreur yooyee daf ko war a xool ngir ëllëg mu man ko moytu wax na ne nañu xoolaata nan la ñuy financer ak fan la ñuy dugal xaalis bi maanaam priorité yi Macky Sall wax na ci lu jëm ci wàllu mbay mi nee na loolee priorité la wax na ci wàllum énergie wax na ci wàllum santé éducation ak lu jëm ci wàllum tàggat ndaw ñi Macky Sall nee na yii yëpp danañu si gën a yokk sunu loxo yéen kaay gi de la témoin mu ñu xamalal ñu Macky Sall ni ki démb ci kanamu chef chef d'entreprise yi daan leen di wax ne leen il faut ngeen am beneen bët bu yees boo xam ne maanaam moom ngeen di xool Afrique Assane Samb xëy jël xalimama ne discours bi nga xam ne président Macky Sall yëkkati na ko discours bi neex na loola waaye nag Afrique si boppam ñoo war a am fulla war a am fayda xam ne ñëpp ñoo leen soxla ngir njariñ li nga xam ne maanaam moo nekk ci réew mi Assane Samb daa di wax ne nit ki buy signé dafay xool maanaam fan la njariñam ëppee yéen kaay gii de la turbine nee na Macky Sall ci boppam ci kanamu nag tubaab yi yi nga xamante xamante ni daat na koy def réew mi ko di jeex ci 69 yi nga xam ne joxoon nañ ko Mansour Faye ngir nag mu daal di si jënd ak dund moom Mansour Faye laaj nañ ko ay rapport waaye nag ba léegi nii jotaguñ sa rapport ya ni démb comité bii di force Covid 19 te général François Ndiaye daal di koy jiite def nañu ab réunion waaye nag ba ñu réunir la ñu xamle nee nañu danañu yebal ab délégation si Mansour Faye ngir nag ñu càmbara xaalis bi nga xamante ni jox nañu ko ana la ko dugal ak la ko daal di jëfandikoo général François Ndiaye ne Mansour Faye wax fan la dugal xaalis justice bi leeral ko askanu Sénégal loolee nécessité la maanaam lu munta ñàkk la yéen a kaay gii da la témoin ñu fekk fa Aliou Sarr mi nga xamante ni mooy ministre bi ñu dénk wàllum tourisme ak wàllum jaww ji daan nay wax ne ñoom seeni jafe-jafe ñoo ngi koy commencé saafara yéen a kaay gii di li Quotidien mu xëy ci coow li nga xam ne moo dox diggante Abdoulaye Sow mi jiite chambre de commerce ak Serigne Mboup waaye nag journal bi nee na ñoom li leen jaaxal matut at sax Serigne Mboup bokkoon na si ñi nga xam ne ñoo doon jàppale Abdoulaye Sow ngir nag mu jiite chambre de commerce waaye nag mbir mi ndeke Sow mi am na lu suy ñuul la keroog bi nga xam ne Abdoulaye Sow gagné na sëriñ bu dafa dem defal ko ay proposition na ko nag mbooleem loo xamante ni daal ay courrier la bu ñëwee si yow da nga koy copier daal di ma koy transféré sëriñ bu wax ko na ko poste secrétaire général man maa koy tànn sëriñ bu wax ko na ko ñi nga xamante ni ñooy dem ci conseil d'administration bu port ak bu COJEC maanaam ndaw ñooñu maa leen di tànn loolee lépp nag Abdoulaye Sow daf ko lànk ba tëdd sa naaj wa loolee moo leen jotale yéen gii di Vox Populi mu xëy di ñu xamal laan ñu taw bi jamono ji am na bari ñoo xamante ni sonal na leen ba génn leen seeni kër moo xam Pikine la géej waaye Kër Massar Rufisque ba li louis Dagana maatam Matam Kaolack Kaffrine yii yëpp ñoo ngi si ay jafe-jafe yu méttee métti ngir taw bi yéen a kaay gi de l'Observateur mu ñu xamal naa ñu niki démb ab policier boo xam ne bureau des passeports lay liggéeyee tudd Mame mu Diouf moo xaru moo rey boppam fetal la jël dóor ko ci boppam journal bi nee na ubbi nañu seeb enquête di def autopsie bi yéen a kaay gi de Libération nee na woppi coronavirus ma ngi law ci réew mi ndax fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août toll si juróom-ñaar fukk ak juróom ñàkk ci agent de santé amee nañu coronavirus yéen kaay gi di Sud Quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu dialogue politique bi déggoo nañ ci lu jëm ci wàllum parrainage waaye nag bëri na ay jafe-jafeek ñàkk déggoo goo xam ne maanaam ma ngi seen kanam te ñoo nga sa ndax lu jëm ci chef d'état ak chef de parti déggoo amu sa lu jëm ci statut de l'opposition déggoo amu ca lu jëm ci bulletin unique loole tamit déggoo amu sa yéen kaay gi di Sud Quotidien moo ci xëy l'observateur xëy yóbbu ñu diwaanu mbëbës ak jafe-jafe yi nga xamante ni askan way yeewoo ci la ko wër maanaam ñoo ngi koy am ci lu jëm jëm ci seen wàllug wér gi am na si ñoo xamante ni feebaru xëtër la ñuy am am na ci ñoo xam ne tuberculose maanaam sëqët su tëdd ak ñenn ñi sax asma la ñuy am journal bi nee mbëbës ak xet gu bon nga bëri na ñoo xamante ni maanaam xet googee moo leen rey yéen a kaay gii di stade ak réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu Manchester City jamono ji nag bëgg na Lionel Messi lool waaye nag Sadio Mané ñoo ngi wax ne soo moytuwulee dafay jóge Liverpool bi nee na Manchester City en tout cas lu toll ci téeméer ak benn fukk ak juróom ay milliards génn na ko ko ngir jële Lionel Messi ca Barcelone yóbbu ko City yéen a kaay gi dee Stades xëy na samp ab laaj ca nee na saison bi Mahrez ak Mo Salah Aubameyang ak Sadio Mané kan moo ci africain bi gën a xarañ yéen a gi di sunu làmb dikk na ci Alioune Sarr mi nga xamante ni moom la ñuy lam-lamme ak jugeem ca CNG di xaar Matar Ba wut ku jiite CNG yéen a kaay gi nee na am na ak jekk lekku defaraat goo xam ne ñoo ngo sa ci Mohamed Ndao Tyson Yaxya Diop Yékini Tapha Gueye ak Boy Kayré Conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen doon may seen revue de